bëri na ci ay nit ñoo xamante ni nii dañuy toog seen bopp di ëbbu lu ñu yóotu duñu ko jot nekk ci ay tolof-tolof tax nañu bëgg am seet gu leer kay ma présenté leen soxna Seynabou ñu gën ko min ci bijou adresse am nekk ci Pikine Icotaf dendee ak boutique Mor Yombale soxna Seynabou ku yàlla may la ci wàllum seet lu tolloog 24 seet da koy def moom soxna Seynabou bu ci nekk nag wuteeg moroomam ku bëgg rek am seet gu leer nañ ñëwal ci soxna Seynabou mii ñuy woowee bijou yemal ci loolu moom ñi nga xamante ni nii dañuy gaaw a daanu ki seen néegu sëy jigéen ñu am plaisir ci seen i borom kër ñi seen jëkkër weex bët ba jigéen bu ñu gis mu nekk ci seen xel gaaw leen gaaw ñëw ci soxna Zeynabu mii ñuy woowee Bijou yàlla may la ci wàllum ñaan ci li ni mel ak soxna Zeynabu yéen ñu am ay doom te duñu toog ci seen i kër lu dul dañuy génn di dem rekk ñëw leen seet ci soxna Zeynabu soxna Zeynabu nag dafa am spécialité te moo di dafay faj rab waaw ndaxte mu ngi ko jëlee ci ay maamam ndax ku xam li bu xam sangat te moom soxna Zeynabu li ni mel ko donn ci ay maamam donn ko ci ay wayjuram tax na wàllum moom dafa nekk spécialité am kon nag képp ku rab dugg wala boog jinne gaaw la ngir mu faj ko yéen ñi nga xamante ne nii wërsëg boo leen am mu daal leen di rëcc dara du toog ci seen i loxo ba ci yéen ñi nga xamante ni loo leen tàmbali doo leen ko yeggali moo xam ci wàllum liggéey la moo xam ci wàllum wut papier ma ne gaaw leen ngeen ñëw ci soxna Seynabou kii mooy la solution soxna Seynabou daal lépp lu jëm ci wàllum ñaan ngir avancer doomi aadama bi moom sawar na ci loolu te ku ci yàlla may la yéen waa diaspora nag bu mii nga xam ne ngeen a bëgg a tukki mu jafe bii di 78 122 07 97 mooy numéro normal am te mooy numéro whatsapp ku ko message mu tontu la jox la rendez nga ñëw faj sa soxla ñu fàttali leen ne soxna Seynabou bii ñu gën a miinee ci bisu mu ngi ci Pikine Icotaf boo ñëwee ba ci boutique Mor Yombale foo laajtee kër soxna Seynabou mii ñu gën a miinee ci bisu ñu joxoñ la ko nga daal di ñëw mu jàppale la ci sa soxla ak soxna Seynabou daal suñu jaaxle jeex na chers internet yu dal leen jàmm dal leen jàmm ci li gën a fës ci ëttu yëglekaay yi ñu commencé ko bés bi la jour mi dellusiwaat ci monsieur ba mbaba ko bëgg nekk suñu réew mi yéenekaay bi ñu xamal ne fi mu toll ni gaz ci jamonoy weeru bi yéenekaay bi dañoo xamal ne état bu ñi mu joxoñ baaraamu tuma mu di distributeurs yi ci ñoom la jàpp ne pénurie bii ñoom ñoo ko organisé waaye gaz moom mu ngi ci réew mi c'est parce que am na sàkku pexe la tribune yéene kaay ubbi bu yaatu na fi mu toll nii koy góorgóorlu yée ngi bëgg dee rawatina lu jëm ci seen wàllub dund te ba léegi si ñu ngi xaar ci nguurug Sénégal gii ñu indi ciy solution yéene bi ñu xamante ni dafa yokku te ci jamono ji bu ñu bëggee dog problème dëgg la am pour mën a dugal dara ci seen gémmiñ yéene bi dañoo xamante promesse rek nguurug Sénégal gi kenn dàq ko promesse ci nguur yi fi jaar yépp te booy xool sécurité ndax fan yee ñu génn rek am na ci benn policier bu jigéen boo xamante ni dañ ko mujjee violé yéeni bi di xamal sa wet gën ka ñu mujjee violé ay droit moom Mimran xamle ci biir yéeni bi ne gis nga Sénégal gii ci fukki at ak ci dugal ci ay milliards kenn xamul lu mu toll lu mu néew néew lu tolloog milliards investir naa ko lépp ngir jàppale réewu Sénégal gii ci wàllum suukar ndax objectif objectifam moo nekkoon ñu arrêté lépp luy importation waaye kii saboté dëgg kay ci wàllum suukar gi moo di ministre du commerce luy njig di njaag rek jamono ji mooy njaag moom Mimran dellusiwaat ci pénurie bi nga xamante ni mu ci suukar sii lan moo tax mu cher digganteem ak état bu Sénégal lépp yéenekaay bi def taxaw seetlu ci augmentation député yi nga xamante ni ci élection législative yi ñu jëm suñu député yi danañ jógee ci 165 députés ba toll ci jugee jër rawatina ci coow góor jigéen yi nga xamante ñu ngi fees dell ci biir réew mi yéenekaay bi def taxaw seetlu ci loi bi tey xam ne sew-sew gi moo di gis nga bu ñu moytuwul dinañ jéem a ñi nga xamante ni ñooy dooreel góor jigéen yi ci biir réew mi Abdou Mbacke Dooli di xam ci biir yéenekaay bi ne il faut ñu encadrer loi bi lu ko mooy dina nekk bunt boo xamante ne nii góor jigéen yi ci la ñuy jaar dugg ci biir réew mi am fi doole nag te su boobaa kenn du ci mën dara maître Djibril War di xam ne ci biir yéene kaay bi ne gis na ci jeunes yoo xamante ni dugg nañ ci wàllum góor jigéen te booy xool boo xool fan ko nga xamante ni ñoom ci biir daara yi ne luy njëg di njaag ñoom ñooy njaag bi def taxaw seetlu ci plénière u bi tey xam le ne assemblée nationale tàngoon na jëri ci coow góor jigéen yi ay miiru ñi ngi di xam le ci biir yéene bi ne gis nga góor dëgg day dummooyu wàllum góor jigéen yi débat sax du ko ci def en tout cas li wér te wër moo di démb moom

mu ngi i kay lii métti boppam bokk na ci tam politique de bonne gouvernance gi mu woote woon te jamono ji saa su nekk ñuy gis muy gën noot opposition bi transhumance yi mel ne tullëg mel ne ci biir mouvance présidentielle bi lii moo tax yéen bi di xam le gis nga Macky Sall mii luy njëg di njaag rek moom mooy njaag source a ubbi xët bu yaat na gis nga nga élection yii ñi doon laam-laamee kan moo nekk tëddal listu majoritaire Yewwi Askan bi yéenekaay bi nag mujjee nañu ko joxoñ na du kenn ku dul Sonko moom la Yewwi Askan bi yaakaar moom la Yewwi Askan bi jiital donte Aïda Mbodj jigéen ju góor gii yépp danañ ko gis ci biir investiture yi mu topp ci ginnaaw Ousmane Sonko naka noonu tam Khalifa Ababacar Sall danañ ko investir ci biir coalition bii yéenekaay bi def taxaw seetlu ci procès lépp ñeel wàllum pension am teg ci moom Diop ISEG këram gii nekk ci diwaanu Sacré-Cœur juge bi bu njéen ko nangu jox ko Aïssatou Seydi ndax jàpp na kër gii Diop ISEG moomu ko le mooy yéene ne Macky Sall li mu bëgg dëgg moo di am ndam ca diwaanu Casamance ndax booy xool discours am mu def ci 4 avril bi la muy sàkku moo di suñu armée bii dem ba jeex ca xeex ba ñuy xeex ak Salif Sadio bu jëree bakkanu Salif Sadio sax ñu jël ko nañ ko ubbi xët bu yaate jagleel ko coow Adji Sarr Ousmane bi nga xamante ni fi toll nii Adji ñu bëri ñu ngi wax ne dafa nekk sous otage wala sax mu mujjee nekk complice ci coow li nga xamante ni fi toll nii mujj koo wàcci yéenekaay bi def ci taxaw seetlu tey xamle ne justice nag dong la xaar mu daal di autosaisiru rawatina ci audio yi nga xamante ni mu ngi mel ne tullak mel ci réseaux sociaux yi ñu naan Mamour Diallo ci boppam moo ko def digganteem ak Adji def rek moo di àdduna tukki na gis nga justice bii dañoo war a jël seen responsabilité nag ndax lu ko may opinion bi dana ëpp doole justice bii waaye nag ak luy mënti xew lépp ca kanamu tribunal lay xewee moom maître Sèye ñaawlu loolu dossier bii ni mu ne fàng ci biir réseaux sociaux yi tey sàkk ci nguurug Sénégal gii mu xoolaat bu baax baax doxalinu réseaux sociaux yi télé yi ba ci rajo yi ndax lu ko may rek musiba mbaa bakkumba dina ma sàmm ci réew la sàcc bi jaaree ñàkk bakkanam laa <laughs> ilaha illallah kii day wax dugg na ko de ay yàlla baax na ñu yend ak jàmm ba suba ak jàmm incha